Ya Allah Ya Allah Lo ci ñaan mu may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi Ramadan Ramadan madam ya habib ya habib ramadan mu ëmb bari rek coolee bari jeeg yëpp kenn ku xam nga ci man ki la man xam nga jeeg jeegu diw ba duy teggin jeeg bu ne la ko xam jeeg bi bari xam nga royal royal du moromu bi ki royal royal rek ala ala royal yow ya royal rek démb xëti mi nga togg ci atum beles jaañ ma ba léegi lekkuma xëti mënum xëti mii moom daa divorcé mbaa mu ñaan baat mbaa muy téngam nga roof ko ci cuukeel bi ba ci om <laughs> ji njeen nga jigéen ci sa li na ci moom ah. waaye démb fu jaani biir newoon sa xëti mi faj nga siti kurébat sattir san xol fatigue matoy émurit yéeg suuf ak jóg di te yaxi di ruux seexum di ginnaaw gi di mett boo naanee kafe war a ga muy fàtt sa xol

natt bi la yàlla na waaye bi ñuy teg de moom métti na. Mm. bëree burti burti fur. ba day dàqante ak yéen ci biir kër gi. kii de dina lay def bëx raaj songu la léeg-léeg mu sax gàcce la bu ma bu ma fii fii. baax na ma yow loo ci mën a dégg xamal ne moom sa partenaire far gi ma far ak yow xam naa ne am na loo xam ne neexu leen. waaw ndax ndax ku ne bëgg a classement bi ku ne ma bëgg a recruter waaye nag sélectionné daa am ñu ko moom yow yaa mën a sélectionné ba ci mbay maa mbay mbay ne daa am ko faram mbay lu tax man mënuma di gérer rek boo ba ko foofu man yow boo boo tra ku yor tra fanweeri bëñ ak benn bu la di gérer wu ku am fanweeri bëñ ak ñaar di gérer la loo yor <laughs> Aliou Cissé sax mënta sélectionné ku wut karambo ren ñëpp mënuñoo maasa nangu karambo ñëwut équipe nationale mbay bu ñëwut ci ñaareel c'est ma fou de chat bu nugum ñëwee rek mel na lépp man na kenn yow toole mer na ay nday saan mais nag li wa tax ma tuddal Royal Madrid Royal Madrid rek moo am défenseur boo xam ne day jaar ci biir surface bi dem dugal hmm. Ramos <laughs> ndaanaan nga ndaanaan nga baadu ndaanaan lamp eh. waa lii la lamp ci lamp day juutu di daan nit ñeeg bëri moom loolu lay def nday sa li la yàlla teg seddu seddu waaye li ñuy teg seddu del xambe ramadan nag dégg nga boo xëyee gisoo kenn def nii defuñ nii xamal ni tey nootal def nii rek la waaye xëy kenn guuxut kenn lekku foo toll wangeen fu ne lii ci yi fi mala la moom damay tiital sax yërëm naa ko waaye la ma jéppi ko def bu tërë dee na la leer daal mm. Real Madrid yaa ko ci kër gi ni ma mel ak yow nag na yoo xam ne neexu leen waa gis naa loolu nag ku ci mel nag mbay mbay wala wax moom mbay man dama ko xam moom dafay rab wala man dama ko tooñ wala dama ko rab waaye bay dafa dafa dafa ya, yor rap nopi rabbi rab yi fumiste moom rab yi fumiste la mbay yi da la djublu tamen xamna way lolu waaye bu mu la metti ndax man yorna naa fanweeri bële nek ñaar te mbay boo ko yap ab sax ko fi da koy wora te boma re rek ma bég kenn du yow. sama 32 daay dama ko top do nak dama ko yobu mbir kenn sa diko ko defar ba mu kenn du yow kër gi mom ya fi ne ñaarel mo fi ne mako wax. Oh aw ma ay kilomètre gañ ay yooyu waaye tamit nag aawa ci la de mais seen këru kër xaadim dalaa war a fay de publicité gratuite bi seen këru kër xaadim rien ko seetloo noonu yow xoolal décor bi ma xool gone yi ko di gaaw jëm si waxtaan bi neex na de walam ma yow mën wër la gauche wala droite kër gi yëpp yi naa ci kaw wàcc la jërëjëf sëñ rek. am na yéen. ma sama tonton. ma sama dama la laaj démb bi ma taajee rek foo nekkoon yaa ngi woon ci kër nekkoon. nekkuma fi maa ngi fi. xam nga ne yow dama yow man li ma gën a naqari ci kër gi nekk ak ay dof li ma gën a metti moo tax man danaa xaru. doom waaw doomu moromam gone de. waaw tegri bii nga ma jox ma xëdde ko moom fu mu jógee. boroxaat. Porokhane tubaarkàlla Barça day moroom lu ah moom du xëdd moom moo tax day yendoo ci pat koor gi day yendoo ci pat laa man mi nekk ak moom kay maa ko mën a wax waaw waaw mel mel ni ku sa lekk du lekk lu baax xamoo moo mu faral du ko jox dara dara dara lu baax dara ah man kay man maa ngi sant ah nga nag da maa sant man kenn da rek na farak ñaar xam kan waaye da nga sagal rek bokkul yaay barta te royal la yor moom périb darkata la yor day yëngate daal périb darkata cam moom daal mel ne ko monté ay réseau moom dafa gi dama te nangu ta naane garab dof bu nangu ta naane garab nag moom ak wéram du yomb ah waaw kii lu muy ñooy ni nag ah? ma dan naa la xamal ak caagri bi